depuis que pandémie bi am il n'a ménagé aucun effort du poosam du dolem, du xam-xamam pour indil ko ay mbokkam li nag le président de la république de xaar ci citoyen je lui ai envoyé un message en lui disant mes félicitations mon cher voilà un acte de haute portée patriotique lii laa la bindal ma ne woon naa ko wax fii su ñëpp defoon nii wax de yàlla suñ demee tëdd nelaw te nag suñuy doom suñuy jarbaat suñuy sët ñoo nar dugg ci école yi ñu ñaanal leen yàlla ñu ñëw ci jàmm ñaari weer yàggul c'est huit semaines boo ci dindee huit dimanche huit moitié de samedi la ca des bëriwul bu ñu démarré machine bi huilé yàlla mën nañu ci dugg ci bisimilahi rahmaani rahim ñu yegg ci alhamdulilahi rabbi alamin xale yi def seen examen mu jeex ñu jublu ci leneen te balaa booba yàlla na yàlla génne jàngoro bi fii ci Sénégal am nañ nag ay information yu ñu jot moom lañ yeewuwaale taxu koo neex l'arrondissement était indemne mais xamal nañu ne yaa des cas yu am demb de nouveaux cas yu am demb on me parle de 5 à Sheriflo et 2 dans mon arrondissement dont un à Moro et un à Andal des cas contacts ou des cas communautaires cinq cas contacts et deux cas communautaires la confirmation va venir très certainement mais xam nga né fu dégg affaire danañ fa yónnee ay ndaw yu bokk kër docteur ñu def test bi les tests c'est trois heures de temps à Diamniadio si ça retourne ñu ñu ne positif na kooku jël nañ ko yóbbu ko donc au moment où je vous parle je suis sûr que le monsieur de Mboro n'est plus à Mboro jarul nit di tiit nañ dollee fagaru constituer waat euh, euh, affaire yi jëlaat mesure barrière defar ay masque sol masque yi sol masque yi parce que tam gars yi demoon nañ ba commencé nag di lâché métti na trois mois d'accord mais nañ ci dem ba yëf yi jeex ba déggatuñ ko fenn nañ ñàkk suñu bopp